dembu presque déggante nañ man li tax affaire bi soké ma man dembu presque bok na ci mujjé waxal motax bima déggé affaire bi dafa ma tit tolo midi gis nga 47 secondes wax nañ ko dembu man ak moom gis nga ko ni 47 secondes ma tourné wat ci ngone gi ñu ni ma ma woté ndeyra ma laa ndeyra ma laa doon woo muy joy man ko lan la lu xew muy joy mënul wax coupé téléphone bi ma waat ko ne ko lan la mu ne ma Mare moom lañ ray man ko ko ray marem marem mi ma waxal léegi mun ma dañ ko fekk ci kër gi jam ko ay paaka après nonu, ma jaxaso affaire bi jaaxal ma torop ci guddi gi nonu ma ñëw fi fekk fi nit fi bari ay nit ma continuer dem après la gis ay vidéo ci internet bi ben way di expliquer ni waji ngent la dëkk je sais pas su ma naan ex copain la won ñëw na fi ba menacer ko de mort xam nga nit ñi kenn waxul man li ma metti quoi li ma metti dara day am ba passé nit ñi door a jug. ñenn ñëw na fi njëkk koo menacé ne ko damal dinaa la rey loolu xanaa seen waa kër war nañ koo yëg quand ak nu mu mën a demee man li may li may ñaax parent yi nit nooy amee sa kër génn yor sa kër d'accord papaam sax xëy na moom li fi nekk bariwul yaay ma fi nekk ak borom bitig bi ak boon bi. mais ak lu mu démé a rek nit boo borom kër di kilifa sa kër nga tek fa garde ñé lan mo tax ñu appliquer peine de mort man lool moy sama problème ko ray ñu ray la waji dégg na bimu ko rayé dafa génn taxaw té paaka bi daan ni yóbbu ma police xam ko kon dofu mais yow lan nga xam ci non Marème xawma ci mom lu dul baax amul ben problème la carte ñëw na sama place la carte bi passé ñëw na marché ville nit ku dal ku teey ko amul benn problème jëkkëram la bëgg jëkkëram man madame fay rek laa ko doon wax jëkkëram la bëgg bëggul keneen sequt ak waa ji lenn. damay bañ ñu indil ko fii ay kayitu dof naan waa ji wérut ak nangam moo ko tay moo ko tay nañ bàyyi bu nit defee dara ba romb passé affaire bi passé ñu bëgg setal naan wérut ak dafa lii ak naa pour ñu bëgg koo génne waa ji nañ ko rey comme ni ko reyee moo ko tay su ko leeroon ni bu ko reyee ñu rey ko du ko rey tant que appliqué wuñ peine de mort dañuy reyee rek comme ay pitax rek. nit ñi dañ leen di rey rek comme ay petax surtout jigéen ñi.